fukki millions yi moo ko ko jox. Ah. moom la ko teralee. wallaay ndeysaan. nee na ma ne dañuy taxaw mais jinne jàpp na dara dal na. mais gel bi xaw naa dof gis nu muy ajee bëri suy wax. sa moo raw repris de justice. criminel bi bon la. loolu si dara laajal ma sa yaay. yow moo tax na laa koy xamee. tout s'est bien passé. très bien. bu fekkente ne am na lenn lu nekk seen diggante di ko yëg. madame s'il vous plaît calmez-vous. maa yow lan Je naan. fase naa la ba noppi xam ko